di ànd ak yow ci tiis bi nga xamante ne dal na ci monde de la lutte muy génn àdduna Moussa Dioum nan nga ko yëgee ak yan témoignage nga ñu mën a defal ci musaa waaw jëli ñu ngi sant yàlla julli ci yonent bi di baalu ñëpp ak ci weeru koor gi di am tiis ak naqar waaye suñu borom moom kenn du xëccoog moom ndax programme yàlla moom du jaas programme doomu moom mooy jaas képp fii képp koo koo fi yaakaar rek wala koo fi doon dégg rek. boo àndeek nit dina la yóbbu ba ne la fii la tëdd donc nag ñun ñëpp kenn du fi des waaye nag ñun parcelle am nañ tiis am na tiis am nañ metit ci nga xam ne mooy suñu rakk suñu xarit suñu àndandoo ñu defandoo lépp nag mu génn àdduna ñu koy jaal àdduna yëpp di ko jaal axlu làmb yëpp di ko jaal waa parcelle yëpp di ko jaal xarit rakkam yi nga xam ne ñoom la nekkaloon man musaa daan naa diggante ak moom tout temps maa moom ànd nañ dem États-Unis bon nit bu ànd ak moom tukki rek mën ngaa seede ci moom as gor la nit la ku ku ku ku ku mën a wax lu baax ku mën a def lu baax nit la ku yaru nit la koo xam ne tam foo ko fekk kaf ree lañ ko xamee fexe na ba marqué empreinte ci histoire Parcelles Assainies fii ñu taxaw nii ñun fii la ñu fooyee fii la màggee mais Moussa ci li wër vingt six unités yi ak ñi fi dëkk koo ci waxal wallahi li muy seede ci Moussa Dioum mooy nit ku baax mun kaf mun ree donc yàlla na ko yàlla jégali bakkaaram yàlla xaare ko ajana maag Modou Lo ba léegi ñu ngi déggante ñoom ñu ngi ci armée li nii à l'instant même mu doon loo xam ni mun nañ wax ci moom ay anecdotes yu bari yu bari lu ñu débuté dem Pikine ànd ak baabo yi mu doonoon daanaan mën a bëre moo am seen bu ñu daan bëree nit ñi dañuy toog di ko seetaan loolu mu doon loo xam ni suma xol fees na mënu wax waaye li ma ciy wax rek mooy jeunesse Sénégal nañu bàyyi xel bis bi bis biñ lay tëral ci buntu jàkka ji naan ku ko amaloon bor da nga wax ak diw li ñuy jullee mooy yàlla na ko yàlla yërëm loolu lañuy ñuy jullee nit te bu ñu seetloo euh, jamono ji ñu toll mooy jeunes yi mooy njagamaar yi muy saasumaan yi muy euh, jànq ji muy jéeg ji xale yi daal maanaam ñi nga xam ne ñoo yor tranche d'âge bi gën a baax ñu ngi dem dem bu bu bari lool na dafa laaj taxaw seetlu ñu xoolaat suñu bopp suñu waxin ci réseaux sociaux yi suñu doxalin suñu defin te ñu ñuy roy muy Serigne tubaak ak maam El Hadj ak ñeneen ñëpp ñu ñuy roy bi ñuy def li ñuy def boobu âge bi ñu amoon ci ci saayir du ñu woon ay mag ay trente ans la ñu amoon ba trente cinq ans suñ tubaab bi muy bind Masaalikul Jinaan boobu du woon mag maam Alaaji Malick bi muy doxal li muy doxal du woon mag Cheikh Oumar Foutiou bi muy dem Màkka du woon mag def na Màkka vingt quatre ans te ñooñu dañu taxawal de projet de société kenn musu ci saagante kenn musu ci waxante lu ñaaw kenn mun ci defante ba seen ba seen euh, euh, seen seen seen projet de société jeex ñu wuy ji yàlla dem àjjana donc ñun nag Sénégal war nañu xoolaat suñu bopp. muy kilifa yi ci bis yi mel nii nag boo la war a toog di def rétrospective suñu bopp di xoolaat. mooy ñun ñu seq ak lu làmb yéen ñu yor caméra yi lépp loo xam ne dëgg ngeen ko ci lu bon dee leen ko dindi. dee leen fësal baax baax yi. parce que àdduna jeex na. àdduna jeex na bu bu léegi rek mun naa la tegal ay vocal yoo xam ne maam Moussa Dioum ñi ngi doon wax mi ngi mel ni jógewu fi woon donc ñu ngi koy ñaanal yàlla jéggal ko ay bakkaaram kon ni mu ko waxee woon Baipal bërki dem mm. ne ko gëj na ñoo déggante waaye maa ngi maag yow ba àjjana ah, yàlla ñu yàlla boole ñu ñëpp ñu ñu dem àjjana ñu fi des yàlla bàyyi leen fi mm. yàlla jéggal ko suuf jégal ko ay bàkkaaram oyofal suuf si kawam ñi ñu fa fekk tamit yàlla jégal leen seen i bàkkaar ñu ngi ñëpp di gërëm kàddu ngeen mujjee déggante yéen waaw ñun bu ñuy waxtaan bu ñu doon waxtaan bon bi ñu mujjee déggante ci weeru koor lañ ne lu nit di wax da nga ci wax loo xaq kaana mu mm-hmm. ci waxu politique lañ doon wax mu mm-hmm. mooy encouragé di encouragé Amadou Ba mm-hmm. Matar Ba aussi dëggante nañ ci par message moom tamit mu kii mu nax mu metti lu ko lool mais Moussa lépp lu xew comme maag moom ak Baye Pël dañu am ay liens yu ñu liyee lépp lu am rek danañ ci diisoo mais nitu sutura la boo gisee lu ci bari nit bu ko seqeek nit bu génnee àdduna na ko denc yenn yi nga xam ne dañ ko doon échanger yenn vocal yenn wax yi nañ koy denc parce que loolu sutura la bu nit di génn àdduna ñuy uññi suturaam mm-hmm. waaw donc daal li may xamal daal suma xarit la woon su ma nit la woon nit ku baax lañ seen kër fii xam naa ko sama kër xam na ko xale yi muy àndal xam naa leen bu baax xam naa jomam fitam ñàmbaaram xam naa jubam xam naa dëggoom yàlla na ko yàlla fay loolu yóbbu ko àjjanal farosi li ma gën a marqué si moom bari na ay ay ay anecdote la yoo xam ne yu ñu dund la en tant que jeune yoo xam ne tey bu boo ko waxee sax du bisu wax parce que da lay dal dana doon lu reetaanlu waaw damay fàttali jour bi ñuy dem mbappat Modou Lo di daan euh, Elton di daan les de di dëkk ball ball Gaye man maag météo ñu ne ko demal dëkk Balla Gaye ci babi bi nekk fii lañ ko fekk. ñu ne dañuy dox ba kii parce que àdduna noonu la day dox. Hmm. ñun ñu dox ba case ba pour ut oto ñu fekk dajeeg moom ci kii bi ci babi bi muy babi foofu ñu ne ko nañ dem mbappat ba boobu ay une heure du matin. mu ne ñu soluma dal ay carax sol keroog Modou Lo moo summi dàll yi mu soloon bagi jox ko ko ñu jël carax yi. ñu dem mbappat ma Modou la ñu ngemb jour boobu ñun ñëpp ñu toog ñu naa ko jëlal diw jëlal diw mu daan ñëpp ñu demee ba yàlla def gars yi ñu war a jël saaku ceeb bi gars yi neen doo leen yóbbu saaku ceeb bi ñun tamit suñu xadar ak suñu trophée ñu ne suñu xadar ñu ne dañ koy jël gars yi dàq ji ñu nag mm. biñ ñu dàq ji keroog dafa daw ba dàll yi toj mm. ñu daje case bi fii ma fekk ko fi mag conke sil ndeysaan loolu bokk na ci lu ma marqué mm. beneen bi aussi maa ngi Modou bi Modou di préparé galaa bi nekk nañ ci àll mu woo ko mu woo Modou boobu moom mi ngi doon moom mbër kaamil la boobu galaa bi kenn amatu ko ci defet waaye boobu talul boppam mi ngi tal mootloo Lo wallaahi lu waaye wax di nga ko waxaat ëllëg di ko joxe ay tegtal naa ko defal lii demal fii demal fii ñaari affaire yooyu bokk na lu ma marqué ci moom beneen bi tamit ñu àndee voyage yi bokk na lu ma marqué ci moom ci animation ci nit la koo xam ne ku bëgg nit nit loo koo xam ku am ouverture d'esprit nit la koo xam ne jiitalul alal àdduna mm. waaw donc Moussa Dioum daal li mu ci mën a wax en grosso modo waa parcelle yëpp ñi ngi koy jàll senegal au nom des Parcellois. ñoo ngi ja ñoo ngi koy delloo njaal mi di wax rek ni ñi nga xam ni ñoom ñoo ko waroon ak ñi ko doon jàppale bu ñu fàttee yaayam bu ñu fàtte ay frère mm-hmm. di ñaanal ñëpp jàmm. allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallam jërë ngeen